mbooloo mi cam cantuk jamhiya bi jëm ci mbokk yi nga xam ne ni yëpp ñoo ngi wuy si ci woote bi nga xam ne ñoo ngi koy def ngir liggéeyal sunu borom liggéeyal Serigne Touba te lépp jëm ci alquran ak xam-xam xam naa bu ñuy jeexal xikma bi sax danañ bàyyi numéro yi nga xam ne nii ku ci bëgg ay leeral danga ci mën a woote tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu jëm ci solos noppi te moom la ñu tàmbale woon fan yi noppi solo sim am doon na yeete bis woote ne waxkat wurus la daal na ngeen xam nag nit ñi ñett lañ nit ñi li ñuy bari bari ñett lañ muy ku yeewu ak ku dof ak ku yembadi nee na ku yeewu ki day jaay wurus jëndee ko lu ko gën a gànjaru maanaam lu gën a seer wurus kon bu jaayee wurus jamaa la koy la koy jëndee wala lu gën a gànjaru wurus daal ndax nee na foo ko fekk day wax aw yiw wala muy tudd yàlla mbaa mu noppi nee ku yeewu ki moom loolu lay doye wurusam mu ne ñaareel ba mooy ku dof nee na ku dof moom day jaay wurus jëndee ko ay xal wala ay jaan ak i jiit ndax nee na day bàyyi wax aw yiw bàyyi tudd yàlla bàyyi noppi di wax lu bon di jëw ak di waxi caay-caay te ku ne xam ne loolu bàkkaar la koy jural ñetteel bi mooy ku yembadi moom day jaay wurus jënde ko ab dóom wala ay sagar wala ab cox mooy koo xam ne ni kat la muy wax gannaaw bu jaayee wurus mooy wax lam koy jëndee bu ko jërulut bàkkaar du ko amal benn njariñ ndax ay waxi caaxaan lay wax ak waxi larax ak wax yu ko amalul benn njariñ kon nag war nañoo bokk ci xaaj bu njëkk bi muy ñi yeewu ndax kat seer na lool te am na solo lool moo tax am na boroom xam-xam buy wax na sax euh, nit bu am xelam matee sëkk foo fekk ku intelligent maanaam ku yeew nee na ay waxam day néew ndax day sàmmonte kaddu guy génn ci gémmiñam gu ne mu doon lu am njariñ baa mu noppi nee na saa boo fekkee nit mu bari wax rek mën ngaa seere na ab dof la moo tax mu ne ida tamma aqlul mar'i qalla kalaamuhu wa ayqin bi umqil mar'i in kaana muksira moo tax sëriñ bay jaxate ci wayam yu neex yi sa day wax ne tuubal te noppi ku def ab noppikat gañe tey koo seeru fas na ne am na xam-xamam ko doy ku fas na nekk mi ngi yor ab xam-xamam bu ko doy walis sa xam-xam ba yow war ngay wax ak ku ko moy xam-xam njariñ la ku yor nag say njariñ na nga nekk ba gis ku bëgg njariñ ngay fob njariñ di ko may ndegam gisoo ko fabal kon say njariñ jariñoo moo gën nga jóg di duyal koo xam ne bëggu la duy wurus ku koy sànni cib santaare def nga lu bon ku jox sa yëf ku ko soppul booba yaa defu ay maanaam mooy xam wax wurus la kenn waru ko sànni cib santaare ab santaare mooy ab sën kon wax lu ama am njariñ la nañ xool li ñuy wax kon te xool fi ñu koy waxee ak ñi ñu koy waxal waxkat nee ñu dañ koo wax mu jooy ñu ne ko looy looy jooy mu ne dañ maa wax te wax ma jotut wax ko jot ñu wax ko mu jooyaat ñu ne ko wax nag tey yaa ngi jooy te wax la jot na mu ne dañ maa wax fu ñu ma warta waxee ñu waxati ko mu jooy ñu ne ko wax tey de wax la jot na te wax nañ la fuñ la war a waxee ngay jooy mu ne dañ maa nu ñu ma warta waxee ñu waxati ko mu jooy ñu ne ko loo jooy mun ne dañ maa wax te wax ma dafa weesu kon wax dañuy war a sàmmonteeg yooyu yëpp di ko nat nañ ci góor góor lu baax téye suñu làmmiñ ci lépp loo xam ne ni amul lu njariñ ñoo ngi sant mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ni ma ubbee woon ci di ci tàllalaat loxo itam ci liggéeyu daaray xikmatul mii lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci suñu biir